di ko fay naa mais Tapha tey nga andi sa rakk Ndiaye Tine yàgg nga koo andi mais andi tey bi ak yeneen yi est-ce que bokk na. waaw di sant d'abord ñi ma àndal ñii Bada Dione ngi. waaw Bada Daouda ngi Mbaye Daouda Gueye sama xarit. ah lii kii 2004 laa commencé ànd ak moom 2004 yàgg na yàgg na ñoom ah, ah. ñoom Bawol la leen ñor. waaw dèjà balaa dara xew. dëgg la saa bu xale yi xew leen nii la dañu ñëw taxaw taaral leen di leen ñaanal yàlla may leen ndam. Ah, kon ñii man xaw ma seen fay waxuma la xale yi Bawol yi. wax nga leen nga fay baale nag seen njaboot gis na ni ñu taxawoo xale Bawol yi wax dëgg yàlla tey nag indeeti nañu suñu frère miin nag yow yàgg naa bëre lii koy commencé moom mu dem ak xelam rek voilà loolu la mu bokk ci tournoi mbër bokk ci tournoi est-ce que mu bokk ci tournoi waaw comme ni ko champion yëpp di bokkee ah man def naa ko voilà muy noonu. Ah, loolu ah, a kese la. tey muy bëreeg caatu yoof xale boo xam ne dafa nekk si yoon ñaati nekk si yoon te 3 points yi la ngeen ko laaj. waaw muy champion lay dajet xam na ne champion la bu confirmé ci lu leer. waaw liñ ko conseillé diggante ak moom mooy na ko jeex cer am li mu bokk ci moom rek. Ah, loolu la quoi. yaa ngi waajal sa combat 21 juillet. des na lu bare bare bare mais entre temps nan nga koy waajalee da ngay préparé wu fi wala da ngay dem dëkk ba. waaw dañuy waaj nag. waaw mais foofu moom entourement moom dama ciy def code. da ciy def code ci problème mu waaj taay bi. staff baa ngi nii ñoom Bada Dione. ñoom Papa Diouf El Hadj. waaw ñoom Mbaye Ndawaan. waaw. pare nan la ñuy def quoi bu fekkee dañuy toog fii préparé wu. waaw baax na. bu dee dañuy jël. Ah. yomb nañu baax na. baax na def rek c'est bon. mais yëg nga sa adversaire moom dem na INSEP. waaw maa ngi gis ay quelques vidéos quoi. waaw mais c'est la lutte. ku ne da ngay xool li xel nga def. dal yow ku la xool lii ku la xool lii am combat bu nekkoon suba dafa mel ni bara de. waaw ci ah. combat lañ jógee. waaw dañuy maintenir suñuy engagement loolu. Tapha Tine mu 2013 ak Tapha Tine mu 2024 lan moo si changé. jëm jéeg lépp moom la. Tapha Tine ngay gis moom nga jàkkaarloo de. dégguma ah dégguma lan nga wax ma ne Tapha Tine mu 2013 ak Tapha Tine mu 2024 lan moo si changé. jëm ji jëm ji nga jàkkaarloo ni ne ci màgg ci côté bu ne loolu moom yàlla defal na la. Bada Dione nuyu naa la. waaw ñu ngi lay fay. Bada looy wax si Tapha Tine. lu ma ciy wax comme. waaw mbër mi. père bi de xam nga ne moom euh, pare na parce que lan moom du combat ngay pare. dafa dinda am benn parcours bu mu topp di ko suivre. Ah, ah. yaakaar naa yàgg na boobaak léegi li mu def rek mooy di entraîner air bu ne entraînement boo xam ne bu yeme maay la parce que du toog bu am combat rek soog a wàññi. waaw parce que yaakaar naa bu pare rek beneen combat ñëw na. tëggal moom pare na ba noppi daanaka moom li muy xaar rek mooy bés ba. mu ñëw bëree daan dem yoonam parce que dafa doon muy dem di wuti dara fi mu toll day entraîné ni mu doon entraîné. Daouda Gaye looy wax ci Tapha taxaw tey. waaw comme ko Bada waxee. dafa moom mi ngi ko war xanaa kay loolu moom rek la wax ne ñoom ñu jóg rek xam ne combat bu mosam bi bii lañ ci a parce que dafa am loo xam ne ko liggéey ci làmb mu ne ci yoonam kon donc ñun li ñu mën mooy pousser ko rek ba li mu bëgg a jot mu jot ko te mi ngi ci yoon boobu yoon boobu nag du ñu nangu dara di ko yàq di ko dara di ko gàkkal incha allah waaw nangu dara mais yéen ngeen dem na France préparé wu ji yéen lan ngeen di def fii ba léegi xam ku pare ak kuy préparé bukk ku pare moom ak kuy préparé bukk bokkul déedéet lan moo leen wutale ki daa pare bu dul suba bu doon suba pare na. kee dee préparé ba mën a ñëw. waaw bokku bokku leen. yàlla yàlla amoo tiitaange ci combat bi. déedéet xoolal xam nga amoo tiitaange. waaw Balla Gaye de lu mu échec dama ko réussir. lu mu échec da nga kaa réussir. waaw dafa échec ci Bombardier. ma réussir ko. dafa échec ci Boy Niang. may réussir ko. ak ban. ah ak ban waat. amul ah Ama Sène. mu échec ci Ama Sène. ma réussir ko. yaa ngi lay mais yow ji na nga ah. mais yow kañ la yow matinal des sports. non yow maa yow depuis yow depuis 2004 ba léegi maa yow. yow noo ko bëggee foo ko bëggee. dara musul ñaaw dara du ñaaw. ñaar fukki at ba léegi. ba léegi yoo xam li nga bëgg rek. dëgg la danaa ko def maa ngi lay séntu. incha allah maa ngi ñëw damaa bëgg nga ñëw taaral sama bopp. danaa ñëw sa bis dinaa ñëw sa bopp. incha allah jërëjëf merci kontaan naa. merci bu baax la. di ko fay naa. mais Tapha tey nga andi sa rakk Ndiaye Tine yàgg nga koo andi mais andi tey bi ak yeneen yi est-ce que bokk na waaw di sant d' abord ñi ma àndal ñii Bada Dione a ngi. waaw Bada Daouda ngi Mbaye Daouda Gueye sama xarit. ah lii kii 2004 laa commencé ànd ak moom 2004 yàgg ah, ah. ñoom bawoo leen ñor. waaw dèjà balaa dara xew. saa bu xale yi xew leen nii la dañuy ñëw taxaw taaral leen di leen ñaanal yàlla may leen tam. Ah, kon ñii man xaw ma seen fay waxuma la xale yi bawoo la. leen yàlla fay baale leen ak seen njaboot. gis ni ñu taxawoo xale yi bawoo la dëgg yàlla. nag indeeti nañu suñu frère miin nag yow yàgg naa bëre bi ñu koy commencé moom mooy mu dem ak xelam rek. dëgg la loolu la ñu am. mu bokk ci tournoi mbër bokk ci tournoi est-ce que mu bokk ci tournoi. waaw comme ni ko yëpp di bokkee ah man def naa ko voilà muy noonu. waaw ah, loolu ah, day tax nga gën a loolu kese la. tey muy bëreeg caatu yoo xale boo xam ne dafa nekk ci yoon njaay nekk ci yoon te 3 points la ngeen ko waaw muy champion lay dajet xam na ne champion la bu confirmé ci ko conseillé diggante ak moom mooy na ko jeex cer am li mu góob ci moom rek. Ah, ah. loolu la quoi. yaa ngi waajal sa combat 21 juillet des na lu bare bare bare mais entre temps nan nga koy waajalee da ngay fi wala da dem dëkk ba. waaw dañuy waaj nag. waaw mais foofu moom entourement moom dama ciy def code. da ciy def code ci problème waaj taay bi. instant ah, baa ngi nii ñoom ba la jot. ñoom ba pàcc wul hélas. waaw ñoom bay ndawaan. waaw. xam nga dinañu wax après nan la def quoi bu fekkee dañuy toog fii préparé wu. waaw baax na. bu dee dañuy jël. Ah. yomb nañu baax na. baax ah. na luñ rek c'est bon pour. mais yëg sa adversaire moom dem na INSEP. waaw maa ngi gis ay quelques vidéos quoi. waaw mais c'est la lutte ku ne da xool li dal sa xel nga def. dal yow ku la xool lii ku la xool lii am combat bu nekkoon suba dafa mel ni bara de. ci combat lañ jógee. waaw dañuy maintenir suñu engagement jëm jéeg nga jàkkaarloo de. dégguma ah dégguma lan nga wax ne Tapha Tine bu 2013 ak Tapha Tine bu 2024 lan moo si changé. jëm ji nga jàkkaarloo ni ne ci màgg ci côté bu ne loolu moom yàlla naa la. lu ma ciy wax comme. waaw mbër mi. waaw mbër bi de xam nga ne moom euh, pare na parce que lan moom du combat ngay pare. dafa dinaa am benn parcours bu mu topp di ko suivre. Ah, ah. yaakaar naa yàgg na boobaak léegi li muy def rek mooy di entraîner air bu ne entraînement boo xam ne bu yéeme maay la parce que du toog bu am combat rek soog a waaj. waaw parce que yaakaar naa combat bu pare rek beneen combat ñëw na kon nag moom pare na ba noppi daanaka moom li muy xaar rek mooy bés ba. waaw mu ñëw bëree daan dem yoonam parce que dafa doon muy dem di wuti dara fi mu toll day entraîné rek ni mu doon entraîné. Daouda Gueye looy wax ci Tapha Tine mi taxaw tey. waaw comme ni ko Bada waxee rek dafa moom dëgg yàlla moom mi ngi ci war xanaa kay loolu moom rek la wax ne ñoom ñu jóg am na combat bu mosam bi bii leen ci parce que dafa am loo xam ne boo liggéey ci làmb mu ne ci yoonam li ñu mën mooy poussé ko rek ba li mu bëgg a jot ma jot ko te mi ngi ci yoon boobu yoon boobu nag du ñu nangu dara di ko yàq di ko dara di ko gàttal incha allah ah. waaw ah. nangu dem na France préparé wu ji yéen lan ngeen fii ba léegi xam nga ku pare ak kuy préparé bokkul ku pare moom ak kuy préparé bokkul bokkul déedéet lan moo leen wutale ki daa pare bu dul suba na loolu suba pare na. kee dee ba mën waaw bokku bokku leen. yàlla yàlla amoo tiitaange si combat bi. déedéet xoolal xam nga amoo waaw Balla Gaye de lu mu échec dama ko réussir. lu mu échec da nga kaa waaw dafa échec si Bombardier. ma réussir ko. dafa échec si Boy Niang. ma réussir ko. ak ban. ah ak ban waat. amul ah Ama mu échec si Ama Sène. ma réussir ko. yaa ngi lay yow ji nga mais yow kañ ngay ñëw matinal des sports. non yow maa yow depuis yow depuis 2004 ba léegi maa yow. yow noo ko bëggee foofu. dara musul ñaaw dara du ñaaw. te ñaar fukki at ba léegi. ba léegi yoo xam li nga bëgg rek. dëgg la danaa ko def maa ngi lay séntu. incha allah maa ngi ñëw damaa bëgg nga ñëw taaral sama bopp. danaa ñëw sa bis naa ñëw sama rajo. incha allah jërëjëf merci kontaan naa merci bu baax la.